الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء أعوذ بالله سمن علي من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم غناو بني سنت يالا جولي سي محمد صلى الله عليه وسلم تاي داني نيو توت ريك سي ايفينمان بيغا خامني ني موم لاني ام مي ايفينمان بو ماغ بو ري لول غا خامني موم لاني تودي تاباسكي حيدل اتحيا حيدل اتحيا بوب غا خامني موم لا سونو بروم سبحانه وتعالى waxoon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam laata yonent bi sax mu jaare ko ci maam ibrahim maam ibrahima mi nga xam ne moo waral aj màkka tey moo waral tabaski kon ñaari événement yooyu benn événement la ñii dañoo nekk màkka di aj ñii nekk ci yeneeni gox yu fasantikoo nekk ay jullit ñooñu lañ sant tabaski kon gannaaw bu ñu yàlla santee loolu si jeexitalu suñu maam ibrahim ñu bañ ko fàtte nga xam ne Ibrahima kenn nit la yàlla jàppe ko umma umma mooy génération génération la boo xam ne kenn nit la koo xam ne ni yàlla génération la ko jàppe ndax mooy defar xeet ndax mooy nekkoon suñu maamu yonent sallallahu alayhi wa sallam ndax bi mu bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu ñëwee yàlla daf ko ne itabih sabila abika ibrahim huwa samaakumul muslimun min qable toppal sa yoonu baay ibrahim ndax moo leen tudde woon le mot musulman bi ñuy waxante tey kon loola yàgg na kon ñu ne la tabaski sunna waajiba la tabaski sunna waajiba la si manistataa si képp koo xam ne nii manistataa attan na ko kon tabaski sunna la waaye sunna mu akkat la sunna boo xam ne ndigalu yàlla la yàlla wax na ko si bismillahi arrahmani arrahim inna aataynaaka alkawsara fassali li rabbika wanhar yi kon farata la waaye farata boo xam ne sunna mu akkat la bu yonent bi salallahu alayhi wa sallam def ak i sahabaam ba àddina di jeex kon mbokk comme que sunna la nag mu nekk sunna bu am solo su sunna boo xam ne jeexital yi ñu si mën a gisee mooy jeexital yi ñu doon gis si koor mooy jeexital yi ñu doon gis si aj mooy lan ragal yàlla mooy lan nangu ne ñun ñëpp ay jaam lañ kenn rek ay kilifa gi kenn rek ay buur muy allahu subhanahu wa taala ndax moo yor def ak dindi kon képp ku mun di doon yàlla moo ñu wax ne wa maa xalaqtul jinna wal ins illa li yaabudun dara taxul ma indi leen fii lu dul ngeen jaamu ma jaamu googa nag moom la euh, suñu maam Ibrahim digganteem ak boromam digganteem ak ay soxnaam digganteem ak ay doomam kon boo jëlee yépp tënku ko ci benn benn kàddu mooy lan mooy tabaski ak màkka fami la bàyyi la yaay ak i doomam yàlla tabaraka wa taala nekk kilifa gi nga xam ne mooy joxe ndigal yi ñu di ko exécuter Ibrahim dafa ñëw benn bés wax ak yàlla ne ko yàlla dama bëggu euh, nga won ma nag ngay dekkale ku dee yàlla ne ko yow Ibrahima li ma def si yow yépp yow foogoon naa ne yow waratoo am loo looy sikk sàkk kon da nga am dut kon mu ne ko déedéet la maa bëgg li yat ma inna xal bi ngir ma am gën a am nu mu tuddati sécurité ngir ma gën a am certitude baat boobu conviction bu leer la soxla Ibrahima tontul na wala question boobu Ibrahima laajal na ko àddina bi yëpp ndax bëri na ñuy laaj question boobu am na ñoo xam ne euh, tooxi doona yi ñuy def wala musiba yi ñuy def yëpp dara waralu ko ndax ñàkk gëm ne àllaaxira dina am moo tax ñàkk contrôle boobu moo tax Ibrahima bugg a delloo si waat nit ñi laajal boppam waaye laajal xeet wi laajal àddina moo tax yàlla ne ko inna Ibrahima kaana umma kon du nit ku ndaw a buñ jëlee si loolu nag yàlla di ko nattu ndax it kuy boo wonee ne yow ragal nga yàlla rek noo mun a def yàlla dina la teg ay question dina la dina la poser question examiner la sa ngëm yàlla googu est-ce que dëgg la sa ngëm yàlla googu est-ce que dëgër na est-ce que ngëm yàlla gi téyewoo ko ŋànkoo ko sa catu bëñ yi bu fekkee da nga ko ŋànk sa catu bëñ yi saa wuñ la sonalee rek wala nga bugg a wax rek booy ŋàng rek <laughs> euh, imaan nga dem loolu mooy suñu problème tey addina bi lépp loolu mooy suñu problème tey na ñun musulman yi tey kon ñu dellu siwaat xam ne tabaraka wa taala moo ñu moo ñu sant sant yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko wàcceel naa la tabaski def ko nga roy si sa maam Ibrahim waaye it du n'importe quel xar walla n'importe quel nag walla giléem wala béy kon ñeenti yi ñooy tabaski xar moo jiitu bu fekkee ne nekkoo màkk xara jiitu xar xar bu góoy kuy boo xam ne tàppuñ ko euh, bi si topp mooy bi nga xam ne dañ ko tàpp troisième bi si topp mooy bu jigéen xar bu jigéen door a nekk troisième position bu gé buñ génnee xar ñu ñëw si béy béy it kuy bi moo gën bi nga xam ne kenn tàppal ko boo génnee foofu nga ñëw si biñ ñu tàpp su fekkee ne pare nga si foofu nga door a ñëw si bi nga xam ne nii bu jigéen la nga ñëw boo paree foofu nga ñëw si euh, nag nag it kuy ba moo gën soo génnee foofu nga ñëw si euh, nag bi nga xam ne dañ ko tàpp soo génnee foofu nga ñëw si nag bu jigéen euh, troisième position bi wala quatrième bi ñëw nekk giléem giléem nag kenn du ko rendi dañ koy loj moom it kuy ba moo gën ba nañ ko toppee mën nañ ko toppee ba mu ba ba muy jeex muy ñeenti gàtt yooyu ñooy nekk tabaski ñeenti gàtt yooyu la ñuy rey it sa màkka euh, bi ñuy tur deret te mbokk ñu del si waat tabaraka wa taala xam ne loolu yëpp yàlla da koo def pour lan pour dimbale xeet wi pour ñu mun a am ngëm yàlla yàlla moo ñu wax ne euh, yàlla soxlawul deret ji ngeen di tuur wala yàpp wu duuf wu ngeen di lekk hmm? waaye yàlla lim si soxla mooy la la ko tax a def jënd naa kuy mu rëy bu fekkee da nga koo jënd pour ñu ne la ah kuyu bàyyi diw bi loolu kese moo tax nga jënd ko xar wala koñ bi yëpp maa fi ëpp xar loolu amul importance kon daanaka tabaski woo xamoo tabaski waye bu fekke ne da nga jënd xar xamne mam maam ibrahima bako ko ko yi sant diko euh di récupérer xalé bi mu ko santone ne ko rendil sa dom mbok boy ñaddu di rendi sa tabaski nga japp ne sa dom ngay rendi kon bu boba tabaski gi dina nekkat lenen si yow dina nekk ak war dina nekk ak ñaax dina nek ne xamne ne ya mi la defal terang bu toll ni nga warona na rendi sa dom mu jël xar remplacer lako a fétation defal doucement defal ndank kon lolu munuñ ko wana ñak wax si bir, li nga xamne ne mom lañu la soxla won si tabaski ñu wax la ne du mbum mo rafet kese na na set na rafet na bax bu amé bu es mo gën so amé bu wéx mo gën wayé bo amul bu wéxit te am benen bu bu bu set wala bu bees wax dëgg yalla tamu nañ ko ca ah kon yoy yep, mënuñ ko wana a wax ci biir événement tabaski bi kon tabaski ñu ne la yi nga xamné ni mo baax si gàtt yooyu ñu ne la bul ut bo xamné bejeen ba dafa dam ba bay nacc mu ne borom gemeng go xeyñ da baxut yoy yep munkar la ci bir tabaski borom gen bu gat borom nopp buñ xoti ba nga xamne euh, wéregul wala genn wàll nopp ba yépp dagg nañ ko daanaka ba mu bu ko xaw a sës si li fii kon yooyu yep si munkar yi nga xam ne nii soppuñ ko si tabaski la gen boo xam ne dafa gàtt bu yooy ba ba jeex ba nga xamni yahyi mun nga ko konté sérieusement yooyu it ko ci tabaski bi nga xamné ni it euh, dafa dafa lap dafa jeex dafa euh koy ak yi nga xamné ni euh beut ba dafa pat wala sax gisut ba boné ni nii sa loxo du la gis mëna yoy yooyu yëpp ko ci tabaski kon kuy jënd xarit wala ngay jënd bey wala ngay jënd nak wala ngay wala ngay wala ngay tabaski nga bëgg bëgg boo xam ne nii yàlla dina pour yàlla gërëm la si kon loolu ñu moytu ko bu baax a baax xam ne yàlla tabaraka wa taala moo ñu defal situation bu mel noonu kon mbokk tabaraka wa taala dañuy tënk tuuti rekk ci tabaski ndax tabaski moom la ñuy wax neex dagan neex dagan boobu wax nañ la si biir biiri wax maam Ibrahima yàlla da ko wax ne ko rendil gént naa la nga rendi sa doom sant naa la nga rendi sa doom rom rendi bépp ngay rendi sa doom nag nga sante ma ko gërëme ma ko kon mbokk loolu lañ leen andiloon si wàllu tabaski kon xëy na jeexut waaye ñu yemale ko foofu xam ne objectif bi li ñu tax a jóg ci tabaski moom lañ leen doon wax mooy kenn ku si nekk bàyyi xel digganteem ak boromam xam ne la muy def ak jaamu yàlla la du ak puukare du ay noos du ay nangam waaye xam ne yàlla moo la teral ndax sa doom daa juddu nga rendi doomu jàmbur am tiyaabo kon nag il faut yow ndigal yi la yàlla sant balaa ngaa kaasi droit da ngay def sa devoir devoir boobu ngay def nag moom ngay exécuter ordre yàlla tabaraka wa taala yàlla moo lay fay ndax قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له